tey si biir ndaanaan sa sañ fekk si fi ay ndaanaan ak ay champion tey kii nga gi mu taxaw ni kii mooy mbër bandi jëm dimanche waaw wala ba booy seek mbër ziar naa la ay ziar bu baax a baax naka tey waaw tey ak nii rek dal jàmm kontaan continué te dara du xew nag ak sëñ Bamba dama ne maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp aw seen fay lenn la laay sant yàlla bu baax mooy xale yi ma bëgg te aw ma seen fay aw ma lu ma leen eh, topp rek te yàlla tax mais damay topp ngir borom bi te deful ma leen salaamaaleykum sonal naa leen nag di lekk seen i saafara ak seen fii dara mais loolu li ma mooy dimanche daa di fayee loolu noonu di wax Boy Seck loo mën si entraîné bu yowoo ko def na nga sonn si sa bopp yoo xam ne mbër baax dañ ko yónni yàkkamti ko. dama ne càkk bi mooy bëre grand combat mais papi nga waxal. donc yéen ñii. Oh. booy seq dama laa laaj mu ne sequt ak yow lenn lu dul arbitre la mu duma la ba say mbokk lëng la nga ñib. kooku dama koo yërëm. Eh. ndax premier jour bi ñu nekk taxalu bi ñuy jàkkaarloowee ñemewul wax ak man barke Seydina Mouhamed coach bi moo taxaw di wax. coach bi coach bi moo koy waxal booy bi tiit booy bi tiit. waaye bu jour la coach bi dugg si biir géew bi. foofu lay gën a bone si moom man li ma def ragaluma ko xam nañ ma. ragaluma guerre. eh Ndiaye laa sant doo dégg yow xanaa. doo sant Ndiaye laa sant. voilà. dee da nga leen déglu loolu bu baax. man dañ maa yónnee yaakaar ci ma. fii laa si digg dëkk bi. tey li nii bu yow ngeen xool ko suba. doo fa ne bu jour ba sampu jaaga. wallaahi bu dëggalee boppam. dëggalee boppam laa waxee. xaw ma mu ne yaa daw mel ni taxi yooyu noonu. mais mu duma ko. ba mu yaakaar ne bi rek la. Ah, mën a jàpp ko naa ko suuf. wooy Sakho li nga wax ni est-ce ba di nga ko di nga ko appliqué. Drago nga may laaj moom mi waroon bëri spécial bi dama koy daan fii stade de Bargny moom nga may laaj mooy bëri spécial laaj ko ni ma ko def ñëpp gis teg seen bët ñu nangul ma nag. ok dëgg parce que defal naag rek parce que sëñ Ba Mbacke te loolu noonu moo teew tey bi ma la ñaar combat bi mooy deuxième combat bi bii mooy deuxième combat bi te si ngay gis lu garaaw man du ma mbaru combat préliminaire du ma mbaru combat préliminaire mbaru grand combat la wala maa ko wax nekkul ma nag comme booy di xaaj ko ku mel ni Pape Cissé booy yooyu ay konam di xaaj naa ay nañ ma def léegi nangam sax non non am na ñu déglu loolu bu baax. sant waa Fatick waa Kaolack ak waa maa ngi sant bu baax a baax a baax amu seen fay waa Arafat di wax jantal Mara bu ko tey war nga koo dégg maa ngi sant bu baax di ñaanal di bëgg nag booy yëpp ñu préparé teel a jënd ticket yi ñu teel ko jënd mu teel a jeex na suba damay bëriwaat damay bëri daan bëriwaat maa ki muy bëreel nii Pala maa am ñoo bërendoo ba Sëñ Fallou Mbacké wan ñoo bërendoo igir amul seral kii xool taxuñoo jóg sax. Ibrahima wala la tudd. taxuñoo jóg dañuy xool leneen ñu xam ko solo ay ay jën keere wala yeneen mais kii paa la. maa ngi ma gën si ngeen nekk. parce que sëñ Fallou Mbacke maa ngi koy fi nga dégg kii xooluñu ko man mi ma ko joxoon man mi enseigne ma daan ka kii du moromam kii ni mu demee lambaax waxul dëgg rek lambaax waxul dëgg rek. kii suñu rak la tey dugg ci bis yal nañ ci dugg ci bisimilah rahmaani rahim génne si alhamdulilah rabbil alamin tey nag xam nga gis nga yow li nga fi gis du saayir quoi job moo ko may ak xam nekk ci xam nga ak respecté xam nga ñi muy laay fol ñu doon ay magam lii suñu message mooy xam nga respecté ñëpp teg teg ko fi nga ko war a teg xam nga mooy loolu loolu lañ koy digal quoi leneen li mu def lu ne xamoo du suñu waaw du suñu conseil si moom di ko ñaanal nag suñu boroom defal ko tawfeex parce que ni ngay gisee ni kii magam la te waxu ko saayir li ko wax xam na ko kooku ancien gloire yi dañ koy maap ki muy bëreel moom xoolal ancien gloire yi dañ koy maap ñun ay magam dañ koy daan kon moom xoolal amul lu muy xalaat amul xalaat xalaat amul xalaat